Benoît Sambou lan ngay wax euh, euh, ñi nga xam ne dañ jàpp ne euh, dialogue politique bi dialogue national en tout cas c'est une grosse farce boo xam ne benn stratégie la loo xam ne li ko tax a jóg mooy ni ngeen pousser élection locale yi ngeen ngeen pousser en tout cas ngeen pousser ngeen ñu fexe ba légaliser wala boog ba yoonal président Macky Sall ni mu amee troisième mandat. xam nga ku xool ay kilifa ñu toog jéemal naa la. ay jigéen yu am fulla ñu fa toog li mën naa la journaliste yi fa ne organisation fêtière nga xool ñoo ñëpp muskas laf yooyu kilifa yooyu yëpp nga ne ay farceur lañu mais boobu sa problème la sa problème la aw ma lu ma ciy wax kon loolu kon loolu d'accord yow boo tooyee xool ñoo ñëpp toog nga ne ay sa affaire la nee ma man man waxuma ko de non ma ñoom ki koy wax ñi koy wax wax kon bu ñu tooyee xool ñu ñëpp chaque sa yaa leen dégg ñu koy wax ma ne non man waa dégg toog dama ne ku toog dama ne ku toog xool kilifa yooyu yëpp. Mm. ak borom musóor yu rëy yooyu yëpp toog. Mm. nga ne ay farceurs lañu. Mm. sa responsabilité la. d'accord léegi léegi euh, euh, mais li ma la ñoom li ñu wax ci affaire troisième mandat boo nee troisième mandat moo la fi dérangé doo ci wax. yow président de la république ñu fal ko defagul sax at commencé gul sax déroulé. lii mooy discours. Euh, li non non defal euh, ma waxoon. Mm. mooy seen waay dama jàpp ni quand yan yenn yëfu caaxaan la quoi. Mm. nit ki ñu fal ko pour mu liggéey nga koy indil coow yoo xam ne pour mm. divertir nit ñi la. c'est la farce. nit ñi nag boo ñu lay jéem a divertir. bul nangu ñu divertir la. Euh, nu mu tëddi golo buy cëppi cëppi sa wet. pour tardal la. boo ko topp tooy. Ah. boo ko toppee yaa nangu tardal sa bopp. d' boobu dégg naa ko léegi euh, euh, loo may wax ci euh, marche contre njëgu électricité ak yu ñoom ñoo bañ ñoo lànk ak président Macky Sall war leen recevoir pas comme ni ko Alioune Badara Cissé médiateur waxee. mais xam nga ñoom dañ bokk ci réew mi. Hmm. ku nekk am nga sañ-sañ situation toll mesure am nga ne euh, vraiment mesure bi dis na bëggoo ko man jàpp naa ni cher na ci ñenn ñi hmm. euh, man mii sama facture cher na lool naa waaye lay nga ko fay ah, wax hmm. xam nga mënoon naa taxaw ne y a rupture d'égalité hmm. des citoyens ah nga nangu ko parce du ñëpp la dal dañoo tànn ay nit ne comme ñoom lañu jàpp ni laa wax de la jàpp ni war seen loxo jot na seen digg gannaaw dañ leen koy teg di fàttali ni quand même président depuis 2012 dafa bloqué prix bloqué prix mais kooku ça a un coût pour l'économie nationale ça un coût pour les finances publiques ah bu toogee ba xam ne tey ak lu muy def ak li mu fi jot a def ak chantier yi mu song yëpp Ah, vraiment baax na nag depuis 2008 2012 ba loo bloqué mbiri nag nga ubbi tuuti mu am ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci participer loolu je crois que c'est un acte de patriotisme d'accord léegi ñoom am nañ sañ-sañ wax mais wala profiter ci situation foog ne Euh, loolu mën a créer soulèvement populaire parce que ñoom nee nañ ay activiste lañu. activiste moom mooy kuy jal amul problème pour jalgati loi ak règle. ils sont dans leur rôle. mais je crois que tey communication bi am solo mooy gouvernement bi ak seen rek ñoo am communication positive. parce que am na xam ne ñoo xam ne xëy na neexu leen. Euh, mais da nga bu leen neexul tamit dafa am nooy waxee ñoom ba ñu xam ne am na fu ngay tollu tamit. dañu war a mën a appliquer la réalité léegi damay dëkk ña ñaar parce que temps bi jeex na euh, sànq gis naa nga junj Guy Marius Sagna nga que tuddoo ko euh, quand même euh, Sénégal ñu bëri ñu ngi fiy ñaawlu li ñu jàppee liberticide li ñu jàppee vraiment benn dictature silencieuse ak tam benn acharnement quand boo xam ne ku ci mel ne Guy Marius Sagna il a fait par exemple moom ña mu àndaloon ñëpp ñu bàyyi leen ñu dem moom ñu maintenir ko prison door ko article 80 mi nga xam ne liberté provisoire sax bu ko juge bi nangoo parquet bi Euh, day bañ te bu parquet bi bañ xam nga parquet bi euh, quand même euh, ministre de la ministre de la justice mooy tuteur bi ministre de la justice il est aux ordres du président Macky Sall bu donc mu mel ne président Macky Sall ba tey mooy moo mooy xaw a nappaal tuuti xaw a naale doole dool dooleem di Mari Sagna wala xaw ko comme c'est un trouble feet ñu ne non kii xaar ñu ñu kat di ko fee sànni ko ndax mu ñu may ñu nooy donc yow noo noo noo jàngatee liberticide yu mel noonu affaire yooyu ma la man nekkoon naa euh, nu mu tëddee euh, euh, ci mouvement étudiant mouvement élève di diriger ay grève di marche nekk responsable politique nekk ci opposition ay surtout musumaa jël xeer man sànni ko policier musumaa jël xeer man dóor ko ci kaw bus musumaa sax nangu taal pëna rawatina bay dem di def yenn parce que tu sais pourquoi ci nuñ ma yaree la parce que man état dañ maa jàpp boo ko foyee suba dana la yàqal. Mhm. alors ma jàpp ni quand même am na loo xam ne mën nga am nooy. ñu naan ragal la ah, ma ragal ma ragal li ñuy def nii mën naa ko xëy na sax maa leen ko dàq mais dafa am fu mu lum damay yar sama bopp d'accord léegi nag man du ma juge mm. du ma magistrat du ma juge du ma magistrat mm. xam nga da def choix mm. dans la vie choix la mën nga gis règle yoon charte nga ne du ma ko nangu. après déglu ma ñëw. ñu libéré ñële bàyyi ko moom a nga xam ne charte bi man du ma ko nangu. waaw am nga ci sañ-sañ. waaw mais boo nee charte bi du ma ci nangu da ngay nangu tamit suba yoon. donte jàpp na ni sax du yoon mu dal sa kaw. léegi nee naa la man du ma magistrat du ma juge. waaw mais mais quand am nga tamit sa xalaat quand même. bi ñu teg euh, xale bi nga xanaa loolu loolu acharnement la ña ma àndoon loolu bokk yëf ya. boo seetee boo seetee dossier judiciaire yi fi am yëpp. doo ci wax. Euh, tant que mu ngi en instruction. waaw d' accord léegi kon dernière question euh, euh, ñële waaye xale yaanaamaar yi nga xam ne dafa ñëw lu dul di distribuer ay flyers ak yooyu ñoom itam ñu jël leen làq leen jant jant bi barki dem la ñu doog libéré loolu tamit du nekk lu recul démocratique. <laughs> leen mais booy ba yenn nam yenn xeetu kaso neex na leen ñoom yooyu daf leen neex day bokk ci su lu ñuy def. di def ay buzz bu ñu leen di yóbbu ñuy génn ñuy fotowu ah, ci ñoom ñooy tey li ñuy def parce que dans activiste loolu rôlam la alors vraiment. Ah, euh, ils sont dans leur rôle. Euh, di dem commissariat. jéem a leen jàpp ñuy foto wu di ut dose doo ci seen liggéey la bokk mais maa ngi leen di encouragé. Ah, euh, parce que ay xale yu baax la ñu am naa ci xarit yu bëri am naa ci ay neveu. Hmm. mais ne tamit nag ah nañ xam ne tamit ah, réew mi war ñu ko fooye. Hmm. réew mi tamit war na am na ku nekk foo xam ne loo mënta taxawee ak loo mënta xalaat am na foo war a yemale. d'accord li ngay def. d'accord alors Benoît président. de de de affaire bu sax euh, CNDT. gis na gis na gis na ma ko waxaatee euh, Benoît Joseph Sambou président de la commission nationale euh, du dialogue des territoires CNDT. sa émission jeex na. dinaa la invité nga ñëw xam gën a xam. sa invité nga defal ma ci sax benn reportage. bu baax waaw waaw bu baax bu baax bu baax loolu moom kooku moom loolu loolu rek laa sawar sa émission jeex na ba ma bàyyi la nga tàggatoo ak euh, sénégalais yi ñoo doon ah, bien sûr vraiment di remercier di la remercier yow euh, Aïssatou. Mm-hmm. Euh, c'est toujours un plaisir toog ak yow. di mm-hmm. waxtaan <laughs> merci. di tamit jéggalu sénégalais yi. parce que xëy na wax di nga am noo koy waxee. Mm-hmm. Ah, dégg parce que lu dee moom solo moom solo. Ah, bu dee am na loo xam ne wax naa ko mu ñagas wala mu heurte kenn. Mm-hmm. maa ngi jégalu. Mm-hmm. mais toujours bu may jàkkaarloog Sénégalais yi damay bëgg a génne li li nekk sama xol. Ah, li nga xam ne moom laa gëm te li ma xam ne li ma jàpp ni noonu la réew mi war a doxee. waaw Sénégal sax fu ñu toll nii moom ci réew mi loolu lañu soxla ñu lay gërëm bu baax di la sant Benoît Sambou nekk kon bokk ci kilifa yi nga xam xam ne ñoo euh, ñooy ànd ak euh, président euh, Macky Sall moom i tamit muy dëgg-dëgg kenn ci ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk institution yu yu réew mi ñu lay gërëm bu baax Benoît ci lool di leen gërëm yéen tamit mbokk yi ci teewlu bi di gërëm bu baax Ndeye Malle mi Madeleine borom glam style Baye Mado de retour Mado ci make-up bi ñoom kay danañu def euh, coiffure yi ah wax naa leen euh, xale yooyu sama rakk yooyu kare bu spa wetu rond point JVC tey nag Mado moo leen xëccal affaire bi gis nga Mado xam nga mi mi mi ngi ci lu ne euh, donc Glam Sall baay Mado euh, boobu yi ñëpp xam ngeen ko ah ma nga foofu ca euh, en face camp Leclerc boobu bu ngeen tourné gauche rek kanam Mado bi ngeen jàkkaarloo ñett mu leen ale je vous attends donc defe naa fàttewuma kenn of mbay tey yëpp lépp yoo laa jël te ko sa loxo ndax gis naa tey moom tu étais partout dañu xulowoon bii passé mais jubóo nañu tey te gis naa yaa defar bagage yooyu yooyu euh, tonton mag ma nekk fee ci wet ga ma kontaan ci lool Moussa Sène nekk ci montage bi euh, incha allah face to face euh, beneen dimanche ak beneen invité jërëjëf merci